teewaay fii ci kër Sonko. waaw sama sama teewaay ñëw naa fi en tant que euh, présidente parti appel 3J personnellement ma ñëw ànd ak délégation sama parti pour ñëw apporter sama soutien personnel ak soutien sama parti yëpp ci lii nga xam ni yëkkati nañ ko teg ko ci ndodd Ousmane Sonko di président Pastef li ma ci jàngat mooy euh, président Macky Sall dafa wax récemment ni euh, moom dina réduire opposition bi à sa plus petite expression yaakaar naa ni ci plan d'action boobu la nekk bi euh, mu gannaaw ba mu exiler Karim Wade empêché nu mu tudd Khalifa mu mu présenté wu mu jël Euh, ki nga xam ni moo nekkoon premier ci opposition bi ànd ak moom ci pouvoir bi ñu nekk mburu ak soow léegi nag li fi des moom la bëgg a faagaagal man tàmbali na ci man ci fan yu néew euh, jiiñ ma taqal ma génne ay audio yoo xam ni dañ ko sectionné pour boole ma ak opinion bi wante dëgg rek mooy mujj euh, Ousmane Sonko tey lii ñu ko tuumaal man am naa njort bu rafet ni dara teguwu ci politique rek moo ko lal pour exécuter plan d'action bi nga xamante ne moom la Macky Sall décidé mooy réew mi bañ a am opposition li ma ciy jàngat nag mooy opposition faaw am ci réew parce que loolu mooy taaral démocratie bi moom am na droit exercer pouvoir am mais ñun itam am nañ droit exercer euh, droit de s'opposer à son pouvoir loolu mooy tax démocratie bi dox wante moom loolu la nanguwul kon liñ ciy wax mooy sénégalais yi ak sénégalaises yi ak sénégalais yi dañu xeex ay ati at parce que Sénégal tàmbaliwul ci Macky Sall am na ay président yu ko fi jiitu mais ay xeex yu mag ñiy perte seen vie ñiy perte seen njàng ñiy perte seen emploi moo ñu may tey démocratie bi ñu am ak liberté bi ñu am loolu nag la bëgg a remettre en cause euh, confisqué na nos biens confisqué na nos libertés confisqué na lépp loo xamante ne rek opposant war na ko am fii ci réew mi le peuple fera face parce que nous ne nous laisserons pas faire. waaw mais li ma ciy wax nag mooy bu ñu yàq peuple bi ñu ngi nañu organiser wu. parce que yàq oto jàmbur. ak di taal kër jàmbur. Euh, loolu baaxul. kon nañu organiser wu maa ngi lancé appel opposition bi yëpp ak patriote yëpp ak syndicat yi. ak képp koo xam ni gis nga ni réew mi droit amatu fi démocratie amatu fi richesse su réew mi c'est entre les mais d'une minorité ñu def front unitaire pour jàmmaarloo ak Macky pour mu reculer ci li nga xam ni moom la bugg a teg sénégalais yi waaw loolu moo waral tey sama ñëw bi tey. noo fekkee Ousmane Sonko. rassuré ku ku ku féex la ku dal la ku teey la parce que wóor na ko ni liñ ko tuumaal dara nekku ci. te waxtaan bu am solo la ñu waxtaan te waxtaan bi am naa yaakaar ci fan yu néew dina njur ay njëriñ yu mag ci opposition bi pour ñu gën a organiser wu pour fair face à Macky Sall Ousmane Sonko daal wóor na ko ni tous les leaders politiques ñi nga xam ni démocratie ak euh, réew ak euh, droit de l'homme ak euh, féex sénégalais yi am jàmm moo leen itteel ñëpp a ngi ci wetam di ko jàppale également peuple sénégalais bi yëpp mi ngi ci wetam di ko jàppale. parce que benn Montesquieu nee na benn injustice boo ko tegee benn doomu aadama peuple bi yëpp nga teg injustice kon ñun ñëpp dinañ jóg taxaw ci wetam xeex injustice bi si réew